asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki julliti mbokki taalibe yi mbokki murit yi ñi ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar jiital ci nuyoo beeg ziar bi sëriñ Muntaxa di ko ñaanal suñu borom mu yàgg fi lool te ànd ak wér naka noonu sëriñam di faal moom sëriñ Moodu mbend di jaare bu baax a baax a baax mbooleem képp koo xam ne yaa ngi yeewoo Touba Argentine bu ngeen gisee toogaay bi xam ne am na nag lu ko waral lu sabab toogaay bi lan mooy sababu toogaay bi. mooy ziar général bi nga xam ne mbokki julliti mbokki taalibe yi ñu ngi koy waajal ci njiital Serigne Mor Talla Sall jëwrinu Serigne Touba ak Cheikh Ahmadou Bamba mi ñu toftal ci moom ak mbooleem képp koo xam ne yaa ngi ci fédération bi di ci liggéeyal Serigne Touba bu ngeen gisee toogaay bi ak jëwrin yi ñu àndal ñu fas yéene taxawal ziar général boo xam ne jëwrinu Serigne Touba ji di Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké di fi Serigne Touba te mote ko sëkk Touba Argentine gépp fas yéene ànd fas dajaloo dem ziare ji Serigne Mountakha Mbacké moom Cheikh Mouhamadou Lamine Bachir ñu ngi ko jàpp nag vingt 27 août bi nga xam ne moom lañ dëgmal mu tombeek samdi bi nga xam ne moo nekk euh, ci suñu kanam e fas yéene dajale mbokki taalibe yi képp koo xam ne yaa ngi ci réew mi it nga bàyyi ko xel boo déggee bande annonce bi xam ne 10 heures ci suba lañuy dajaloo fële ca daaru Minam pencum Serigne basiiru mbàkke mi xam naa bu ko defee rek dañuy jox kàddu yi ki nga xam ne moom mooy euh, Serigne Dame Cissé bu ko defee moom dana ci leeral lu bare bari bu ko defee bu noppee jox mbokki taalibe yi kon nag na ko ñëpp bàyyi xel te xam ne ziar bàyyi noonu sëñ Dame bisimilah. ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di leen yëgal rek ziar bi xam ne ani yàlla ñu yàgg koo def euh, fii ci kër sëriñ Touba waaye yàgg koo def ci xalifa bi fi nekkal Cheikhul Khadim ñu fas yéene def incha allahu taala gaaw bii di ci daarul minan kon ñu bàyyi xel ne képp kuy dégg sunu kàddu boo xëyee 10 heures incha allah foo man di jóge nanga ko bàyyi xel ndax ñun ñooy xaar sëñ bi waaye sëñ bi duñu xaar kon ñu bàyyi xel ne képp koo xam ne siyaar bi yëkkati na rek boo ñëwee nga jublu nga jawal si daaru minan ñu daje ca biir kër ga toog déglu ndigal loolu mooy ndigal li ñu bañ a jàdd fenn dikku toog ci siyaar bi ba siyaar bi jàll ku am looy looy doxi yitte jooy def nga def ko waaye daal ku ñëw di siyaar ji da ngay dem toog fa nga xam ne falan la fa la ndigal li nekk bu ko defee ñu toog déglu ndigal bu ñu demee ba jot ndigal fu sëñ bi nekk rek ñu fekk ko fa waaye li ndigal li daal mooy ku xëy rek na nga ñëw daarul minan ci kër Cheikh Mamadou bashir ñu toog xaar ndigal bu ndigal jibee fu sëñ bi nekk ak ñu fekk ko fa man koo jooyal siyaar bi xam naa loolu moo doon kàddu yi ñuy fàttaliku nag eh, sunu sëriñ eh, di wala réew ñëpp muy Touba Argentine ak Brésil muy Cheikh Ibrahima Khalil Mbacké ibnu Cheikh Mouhamadul Fadilu Mbacké radiyallahu anhu ñu ngi koy fàtt ñu ngi koy fàttaliku di ko rendre hommage di ko ñaanal yàlla sunu borom mu yokk ay leeram ak taw feexam ndax siyaar bi moo doon ànd ak ñun daje ca këram ànd ak ñun dem ci mboolem fu ñuy taxawale wala fu ñuy siyaaree di ko jébbale liggéey Sëriñ Tuubaa bi kon ñu ngi koy ñaanal yàlla sunu borom yàlla yokk ay leeram taaf na ci barkeem te yàggal fi ko wóotu di sëñ Fàllu mi toog jotaayam lu yàgg ci barkeb Cheikhul Khadim kon xam naa kàddu gi dañ koy jëlee rek Serigne Cheikh Mbaye mu sànni ci ay kàddu bisimilah Serigne. ginnaaw loolu nag kàddu yu jërul muy gudd moom suñu Pape Soda moo waxoon ñu ñëw ci ndigal daayira Ashaabul Jannati bi nga xam ne seen xale tey moo ñu moo ñu ko tudda woon ñu ngi naan noonu mu ñu ko tudda woon yàlla bokk ci Ashaabul Jannati suñu borom yërëm ko te jéggal ko te gisale ko maam suñu fàllu ñu yàgg koo ñaanal ñu fàttali siyaare bi suñ Pape Souley képp xam ne yaa ngi jógoon Arsane ñëw fi bokk ci dayre Asabul Janati wala nga bokk ci beneen dayra wala boo ko ajoo ci beneen dayra sax ñu lay woo ci siyaare bi suñu borom guddal aw yàggal ko fi siyaare bi mooy gaaw samedi le 27 août kon nag ñu ngi ci woo bépp taalib boo xam ne gis nga appel bi te dégg ko 10 heures fekk la dër mi nag asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu mbokki taalibe bi ñu ko waxee rek bi nga xam ne moom la amal at mu jot fii si kilifa gi fii sëñ Muntaxa mi fii sëñ Tuubaa samedi la 27 incha allah si kàttanu suñu borom sa daaru Minam 10 heures si suba comme noonu ko sëñ daam waxee rek sëñ bi moom du xaar kenn ñun ñoo war a toog dem toog di ko déglu kon ñu ngi ñaan yàlla sama borom yóbbu yóbbu nu saak jàmm te ñu defe ko nu ko daan defe saa su nekk rek si ak dal ak ak taalibe ñaan sama borom yóbbu nu saak jàmm te ñu fekke kook jàmm ñaan yàlla lépp luñ si ñaan rek yàlla na ko sëñ Tuubaa motale barki Cheikh Khadim ñi ngi jaare ñëpp nag salaamaaleykum kon mbokk yi nga xam ne yéen ñu doon déglu te duñu seetaan liggéey baa ngoog bàyyi noonu muy ziar général bi nga xam ne waa Touba Argentine war nañ ko ziare Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké mi fi nekkal Serigne Touba te mote ko sëkk wara a dëppoog samedi le 27 août ci weer wii nga xam ne ci la nekk na ko ñëpp waajal 10 heures ci suba pencum daaru minam na ko ñëpp waajal mbokki jullit yi mbokki taalibe mbokki Touba Argentine ak fu waay mën a nekk ci réew mi liggéey baa ngi noonu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu